daara Majmahun nii bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ni ñu koy defee at mu ne defaat nañu ko ci atum 2021 bi di ziyaara bu mag bi ñuy amal ci ki fi nekkal Serigne Touba di xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou mu doonoon ziyaar boo xam ne ñu ko amal ci àjjuma gi dëppook le 9 ak samedi 10 juin 2021 ci kër gi nga xam ne moo nekkee ci daaxul daarul minan mbooloo mi nag dañoo fanaan si ci aljuma ji mbooleem daara ji ànd ak kuréel yi ñu fanaanee jàng xasida ba bët set ni ñu ko baaxoo daan defee ci mbooleem ziyaar yi nga xam ne moom lañ fi daan amal ci kanamu ki nga xam ne moom mooy xalif général mu mourides njàng moomu nag ñu ànd ci ak mbooleem kuréel xasida yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji mu nekk njàng mu pasteefu te seelu lool aljuma ji dañoo fanaane jàng ba bët set ci samedi gi wéyal ko ba ci tisbaar ci la sëriñ bi daal di génne ginnaaw bu kuréel gi ñaanee jëwrinu daara Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar di jëwrin jaxate jébal ko àddee ji waaye yeesalaat mbooleem pas-pas yi ak seenu jaayante ak sëriñ bi moo jiite kuréel bi moo ñëw ngir ànd ak bokki taalibe ñoo jàng ñoo nekk université ñëwoon ngir siyaare dañu bëgg a jox sëñ Mamadou Diakhaté mu nuyoo nuyoo daayira bi si mu tontu leen ndax waxtu julli daa jot ay kilifa nekk sëñ Touba di ko nekk da ne a xaasal jaar ci yéen rek gisante yéen kon lu ñu ko mën a gën a tënk rek moo gën. bisimilah barke bu Tuuba asalaamaaleykum Mbacke eh, bi kàddu yi rek di la bu baax a baax ci coono yi nga xamante ni teg nañ la ko tey waaye lépp rek eh, li ko waral mooy xër rek ci jëmm ji ndax mbooloo mi dañoo maasoo ñëw ñëpp la bëgg la lool te yaakaar la tey ëllëg moo tax bii mu mooy suñu ñetteelu yoon bi ñëw di la siyaare si Tuubaa waaye ñetteelu yoon bi moom dañoo jàppoon ni dañoo bëgg ñëw nen la ko woon sàkk woon li ci yow ci altine bi weesu nga xam dañoo yónni woon suñu benn jëwriñ yu nekk Touba mu ñëw sàkku ndigal li nga nangul ñu ko bañ ko waxee mbooloo bi ñoom ñëpp ñu béy ko fas yéene ñëw fanaan jàngal la xaste yi ndax xam nañ ni yow xaste yi ni nga ci mel moom xam nañ ko bu baax a baax moo tax ñëw rek bëggoon jàngal la xaste yi te xam ni boo bëggee rek ñun suñu lépp day baax mbooloo mi nag mooy ma ñoo nóoree ni eh, sa sa waajur bu tedd ba sa xarit ba sa soppe bi muy Serigne Saliou Mbacke moo moo ñu ko tuddee woon eh, xeetu ziar bii dañ ko daan defal moo tax ñu bëggoon koo fàttalikuwaat sa jëmm rek bu ñu ko leen nag ñu la siy sant bu baax Mbacke dara ñaanal bu baax nga yàgg fi lool te wér ba naaj yi nga naaj yëpp bëgg ko liggéeyal sa maam si Cheikhul Khadim nga matale lépp ba naaj yeneen lépp ànd ak wér ah, ak gudd fan loolu eh, daara ji nag. moom université la ñu nekk bu Dakar Cheikh Anta Diop fu mu nekk nii ñetti ñetti ñetti kuréel ñoo ci nekk ndax am na ñoo xam te ne ñu ngi jàng ba léegi doon ay élèves ak ay étudiants ñenn ñoo xam te ni jàng nañ ba nopp tàmbalee liggéey ak ñenn ñoo xam te ni fu mu nekk nii noppi nañu waaye ñu ngi wut liggéey soxla yooyu yëpp nag Mbàkke indaale nañ ko jébbal ko nga ñaan ñu si bu baax a baax a baax suñu borom jàppandal lépp kon Mbàkke ñu ngi lay santaat di jégaluwaat baax di tuubaat bu baax ak soxla mboolum yëpp nag dugal nañ ko suñu kàddu yi xam naa du ñu mën a lim yëpp waaye ku nekk rek euh, indaale na ay soxla yu bëri yoo xam te ni yaakaar nañ ci lool lool lool Mbàkke kon ñu ngi tuubaat bu baax di jégalu bu baax di la ñaan baax nga yàgg fi lool te Mbàkke jërëjëf. yi jottali na kàddu yi sëriñ bi dégg na ko dégg na ni mu ko waxee népp sëriñ bi nee na waaw kay tubaarakalaa loolu sëñ bi am na yéeg yëg ci jataay bi xam na it ay ndaw ngeen yu amuk bëgg jublu sëriñ bi mu di leen gàttandu ci seen jublu googu seen bëgg googu ni mu ko baaxoo defe ci wommate ak teetee rek ngir ñëpp mën a gindiku ba mën a dem ba mën a jariñ ju sëriñ bi loolu rek mooy yitteem ci taali bi yëpp rawatina nag ndaw yu mel ne yéen ñoo xam ne yéen ngi sàkku xam-xam te di ay kër di ko sàkkoo fu yéen bi day am ñu muy wax ak yéen ak lu mu leen di sàkkul ak yoon wu leen di teg lépp gindiku ba mën a dem rek la yéene ñëpp waaye dañ ko yéene loolu ko ñu déglu sëriñ bi wax leen ay kàddoom ngeen yóbbuloo ko sëriñ bi nee kon mi ngi leen di sant sun borom bu baax mi nu booleeg sëriñ bi di leen sante sëriñ bi itam mi nga xam ne lépp mooma nee na mi ngi am mbégte ci seen tolluwaay bii ak seen taxawaay bii sëriñ bi nee na dégg na ni ko sëriñ jaxate jëw diñ waxe nee dégg na ko bu baax a baax nee am na ci mbégte mu rëy a rëy waaye nee na mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax nee nii rekk la nee na tawféexi sëriñ bi ju leen sunu boroom demal rekk la nee na kon loolu sant rekk ci war ndokk bi ngeen ko xamee noonu te jàppe ko noonu nee na loolu rekk mën na leen defaral seen mbir yépp nee na kon ngeen am xel mu dal bu baax a baax nee na yittewoo sëriñ bi rekk yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek nee na jooju tawfeex ku ko sunu borom defal sa mbir defaru na ba noppi xanaa ngeen gën a xam li ngeen am bu baax rek te gën cee def seen lépp nag nee na seen lépp mën na cee defaroo tey ak ëllëg kon góor góorgóorlu leen ci yitte jooju bu baax rek ndax seen taxawaay bu rëy bu rafet bii góorlu leen ci bu baax a baax bu leen taxaw bu leen geesu na ngeen rafet njort bu baax nag lépp loo xam ne seen itte la lenn loolu mën ngeen cee rafet njort ndax ci seen biir yitte jii rekk la nekk nee loolu nag lépp tawfeex lay doon incha allah góorgóor leen bu baax a baax na ñëpp taalal seeni loxo ñu ñaanal leen ginnaaw bu leen Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñaanale la mbooleem waa daara ji wéyale ziar bi dem ziare ji Serigne Cheikh Saliou Mbacké moom it ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo di defee at mu ne sëriñ bi nag ñoo ngi ko fekk ci xelkom mu dalal daara ji defal leen ay bernde yu yaatu lool loolee di wane mbégte gi nga xam ne am na ko ci daara ji di Majmahun Nurayni ñëw fekk ko fi nga xam ne moom moo di ci xelkom ginnaaw bi ki nga xam ne moom moo di jëwriñ jaxate yëkkati fa ay kàddu waaye lu ko jiitu jébbal ko àddee ji nga xam ne moom la ko daara Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ziyaare sëriñ Cheikh Saliou Mbacke santaat na bu baax a baax daara Majmahun Nurayni cant gu kawe lool waaye am mbégte ci ñëw gi nga xam ne ñëw nañ fekk ko fi nga xam ne moo di ci Xelcom soññaat mbooleem taalibe yi. asalaamaaleykum sëñ bi nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo akub siyaar te boole ci ak cant te di leen ñaanal tey sàkku seenug ñaan. mu ne dafa mel ni. agsi gi ngeen agsi fii dafay firi waxinu wolof ne mag lu ko soxal doxloo ko waxloo ko hmm. mu ne alhamdulilah ndax saa borom jàpp na la yoon wi waaye sori na nag fa ngeen jógee it sori na te yëg nan coono yi ngeen toggoo ci yoon wi lu mu ne dafa mel ni jëf yi ñuy jëf ngir yàlla te sellal ko lu ci ëpp coono rekk ëpp ci tuyaaba

Hmm. ne su fekkee fekk ngeen ko ci jotu ba mu ba mu joxe ay ndigal ndigal loolu ñoo ciy bokk tënku su fekkee fekku leen ko ci it ndigal lu mu joxe ndigal lu mu leen jottali mooy ndigal ci kàddu kàddu sëriñ bi la koy jottale

kon kenn mu ne ni ngeen adressé woo ngeen nga xam ne ci jàngukaay ngeen adressé woo nee na kon kenn warul leen a jiitu ci dénkaane boobu. mu ne waaye dafa yaatal dénkaane ji. ngir bëgg a yaatal njariñ li. bi mu nee seen itte na ngeen ko def ci jub. ak sàkku xam-xam. dafa wax ni sàkku gi xam-xam it fastaxilu bil xifsi wa tilaawa na ngeen nangoo sonn cim njàng lool. lu ca laaj ngeen mokkal ko ngeen mokkal ko. lu ca laaj ngeen majaalisa saxaawa. saxaawa. bépp barab bépp barab boo xamante ni. suñ fa nekkee. dee su fa dolli koo ci suñ borom. boobu barab mat naa teet. mu ne la ca des nag mooy feetliwaat ñaan gi rek. sant sunu boroom te jéggulu ko. te ñaan nag ginnaaw nee ku sant. te ñaan nag ginnaaw nee ku sant. ci santin wa nga xam ni moom la taamu. te yàlla na ci boole sunu cant ñun ñii. sunu santiin ñun ñii. ñaan sunu boroom yokk noo aar. yokk noo musal. te lii nga xamee ni mooy curu jullit. bu mu war a jiital ci càkkutéefam. mooy sunu boroom taw feexal ñu liimaan ak lislaam ak lixsaan mu ne mu ne kon loolu bu nu ko taw feexalee te yàlla na ko def yàlla na nu aaral boppam nag bañ mucc ci mbooleem ruur yi mu ne ginnaaw bu bu nu nangulee cant it yàlla na nu yokkal kàttan gi ba fépp foo xam ne suñu yéene yegg na fa ci jaamu yàlla goo xam ni wéer a koy def ak wërsëg mu may nu wér googa defal nu wërsëg woowu loo xam boo xam ne xalaalan tayiban lay doon te lum nu joxit ci baaxam ak barkeb ku baax kim nu booleel yàlla na nu yàlla na nu defal tawféexi nu delloowaat ko ci sunu boroom daje ci ak ngërëmam allahuma mu ne ngan gi nag day loo xam ne lu bari bari du ëpp loo ca am rekk jàpp ca waaye bëggoon na ngan gi gën a yaatu nii nag

andi ko ku ren amel na mu ne mu ne yéene ji ngeen amoon ci indi ko ci sari ceeb kuréel dafa mel ni tuuti ngeen ci joxe xanaa dama leen xanaa kon da leen di lebal li ci des rek bu ko defee ngeen waaj man saa borom may nu ñëw xabaan ak jàmm mu ne bu fekkee ngeen féex ci njàng mi rek nu mën a gisante waat allahuma laqina baadal firaq إبليس والإيمان ما يسلك بكلاما يدي جمعنا الصراط المستقيم والمستقيم كلنا ناس الصراط المستقيم وحلال عبدا ويخوتنا مثل عن نبوة المخلب هذا كنت Thank you. man nii nii rek la nag waaw. mu ne nii rek la nag. waaw waxtu wuñ fi wéetali mu ne waxtu wuñ fi wéetali ko. ak fuñ fi wéete. ak fuñ fi wéete. waxtu wuñ jege. waxtu wuñ jege. ak waxtu waxtu wuñu sore. ak waxtu wuñu sore. na ñuy sàmmonte. na ñuy sàmmonte. melo yi nga xam ne. melo yii nga xam ne. moom la sunu borom taamu ci ñun. moom la sunu borom taamu ci ñun. te jikko sàmmante ci suñu béykat nag. te njëkk koo sàmmonte ci sunu baatin nag dafa am xadis boo xamante ne ne dafa am xadis boo xamante ne wax dafa wax ni da ngay ba da ngay jaamu sa borom da ngay sa borom boo koy jaamu mel ni da ngaa jàkkaarloog moom mel ni da ngaa jàkkaarloog moom waaye bu la wóoree yow tegoo ko bëti waaye bu la wóoree ne yow tegoo ko bëti moom mu wóor la ni mi ngi lay teg bët. waaw sellal googu nag yàlla na ko sa borom taw feexal. mu ne sellal googu yàlla na ko suñu boroom taw feexal. ci mboolem tasarufaat yi. ci mboolem xanaa dem te ñëwaat ak kon dem te ñëwaat ak jàmm rek. kii ah. am na waaw ah, dañ ci génn ñetti suba fekk saako suuf jox leen ko waaw tuuti bu fekkee mooy daje ñu ñu daje waaw ñu ciy tàngal dañ ciy bàyyi dañ ciy tas waaw. na na li nga xam ne mooy mooy mooy yób yóbbu yóbbu ñetti yóbbu yéen murit mm. muy xasaayid wéetal googu nag dara jiitu ci kafe mm. moo tax nag ma bëgg leen joxaat ay kafe mm. yéen fi dajeetee mm. ma jàng alxuraan jàng xasaa yi rek wéetali bokk bokk ci seen wéetal mu ne li nga xam ne mooy yóbbalu nun murit muy mbo muy jàng alxuraan ak xasaa yi di ci wéetalikoo gi wéetalikoo gi dara jiituwu ci kafe mu ne wéetalikoo gi dara jiituwu ci kafe moo tax mu bëgg leen jox addi yi kafe moo tax mu bëgg leen a jox addi yi kafe ñu baale ko ngeen yóbbaale ko. ngeen fi dajeete rek. mu ne foo ngeen fi dajeete rek. ci xas ci alxuraan. ci alxuraan. ci xasaayid. ci xasaayid yi. nga xam ne seen seen mbokkum taalibe yi mi ngi ci seen wet. nga ngeen xam ne seen mbokkum taalibe yi mi ngi ci seen wet. waaw tubarkalla. mu ne ngeen ngeen ngeen ngeen bañ noo fàtte benn yoon. mu ne ngeen bañ noo fàtte benn yoon. ñu bañ moo ne mu bañ leen a fàtte. waaw. lépp rek tey da nga addiya bi pour ñaanal suñu borom yaa dégg ak doole doole. bëgg liggéey bi moom ñu doon yëpp ñu def ci lu kaw ñor. ñu dem ba dem ba dem ci man ñu gën a ñaanal seen sa borom. ñaan sa borom bàyyi la fi ba muy kéemaan. ñaanal ko baax rek. mboolem li ñu fa jàng ci alxuraan xasida. ñaan sa borom. lépp lan ko sa sa borom nangul te boole na ko. lépp rek lan yàlla na ko suñu borom nangul te boole na ko. xam naa. suñu jaxate. man ñàkk ñàkk na maa doyal lool ci jotaay bi rek. mu ne ñàkkoon naa doyal lool ci jotaay bi de. ak gise gi. ak gise gi. waaye nag kon sant rek ci lu ñu sa borom la. mu ne kon sant rek ci saa borom ku ne xam na ni mu safoo daara Majmahun Nurayni ak fi mu leen teg loolee sax moo waral bi ginnaaw bi mu leen ñaanalee ba ñuy dem mu jox leen ay yóbbal lu demee ni ki ay siwo kafe ak saakub suukar. loole di wanewaat rek mbégte gi nga xam ne sëriñ Cheikh Saliou Mbacké am na ko ci daara jii di Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta Diop bu dakaar ginnaaw bi ñu jógee comme daara Majmahun Nurayni bu université Cheikh Anta bu dakaar ñëw nañ ci daaru Mbacké kër sëriñ Modou Kéemaan moom it ziyaare ko ni nga xam ne noonu lañ koy defee at mu jot moom it ñu yeesalaat couleur gi nga xam ne dox na ci seen diggante ak sëriñ bi waaye jibalaale ko seen àddee